ñu baal ma dernière bi pour ce staff la il paraît euh, Bijou Ngoné laa ko bëgg a poser poser euh, s'il vous plaît ah. parce que lu ñëw te parfois ñu ne ay staff am na Bijou nga baal ma dafa am benn rumeur buy juddu le de Sidi Diop nee na problème bi am ci diggante bi yëpp yaa ko waral yow loolu vraiment je préfère nga nga contacter Bijou parce que mu mu mu face à face nga poser ko ay mu tontu la vraiment ma ma Bijou xam naa ni tu es capable de répondre à ces genres de questions mais maa lay ñaan rek nga may ma loolu ma égali sama waaw sama sama bagage te xam naa ni di ko tontu bu soobee yàlla bisimilah.